yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi asalaamaaleykum nuyoo jullit ak moroom ma ñu nuy dégg ñëpp ak ñu nuy seetaan di jéem a tàbbi ci liggéey boo xam ne benn féetewu ko kaw ndax xamle ca la nga xam lu néew ak a bari ci nitu yàlla tiyaa ba ëpp ko ci yow ma koy wax ak ci ña koy dégg Cheikh Sohaibou bu moom boo tuddee xaadim rasulullahi sallallahu taala wa sallam rek fa la euh, euh, ñëwug àddina li ñuy wax nazab wala wala wala juddu fa la mën a yem ci baax kon foofu moom mooy lu ñëpp xam tamit ngëneelul yàlla yàlla loolu nag dafa doon taamu lu ne ka ko yeyoo yàlla def mu taamu woon askanu Mamadou Assa Jaxate ak ma parti si la koy wax libaas euh, loolu mooy askan wi Cheikh Souhaïbou ñu ko sëñ Tuubaa tànnal lu ci li ñëpp xam ba koy taamu lam ca waxoon ñëpp dégg na ko mu yónnee maam Thierno Mewndu ñu ngi koy taamul askan woo xam ne ña ca bokk seen juróom-ñaari maam kenn mosu moom mosu doon it ñuy faloo ko folli ko nañ doon it ay kàng fóore duñ duñ laaj masala na ñuy dundee it lu leew sart yu bari la loola nag yàlla taw féexale ko suñ mu daas sa jaxate muy waajuru soxna Mariama muy waajuru Cheikh yu kon loolu mooy binis ba laxu euh, yàlla def na mu ngi gën a àdduna tam njaareem ci année 1918 euh, bokk na ci ay kiimtaanam ci ñëw àddunaam fekk na soxna Mariamatu moom mu ko di waajuram amul wéradi ku tar waaye ci barkib Sëñ Tuubaa baatinam mu def ca baatinam ba wéradi googee ca biir wéradi digga ci la Cheikh Souhaïbou bu gënee àddina kon bu ca bu ca bu ca demoon loru Sëñ Souhaïbou bu du ñëw waaye Sëñ Souhaïbou bu damay bëgg ñu xam ne ba àddina Sëñ Tuubaa fa mu moom jëkk na ëpp ñëwam <coughs> loolu moo waral ñu gën a ëdd rek tuut lañ ca teg rek soxna si noppalu suñ suñ Tuubaa wax ca lam ca wax ci waajuram wax ne waajuram dafa jot bakkanam moom sëñ bi ndax ñoo tolloo woon wér digg saayir ca booba jamono daal di koy méngaleeg soxna Aminta Lo waajuru Cheikh Moustapha moo waral bi mu demee mu ne nañ ko yóbbu fa moom daal di woo soxna xari sill mooy waajuru sëñ Abdou Samad dénk ko ko ci wàllu radaaxa mu hmm. nàmpal ko hmm. moo tax suñu ëpp samat ak Cheikh Sonia bu ñoo bokk wenn waajur wu góor waaye day mel ne ñoo bokk tom waajur wu jigéen hmm. booy wax ci boobu rek day mel ne ci li ñëpp xam mooy jàngale alxuraan ak jàngale xam-xam te fekk loolu daa am lu ko jiitu lu bari lu mu daj ci yoon wi daj ko ci bokk gi daj ko ci lislaam gi euh, bi nga xamee ne jàngee nañ alxuraan fii ci am sutu ba yeggal ba Cheikh Moussa wax yóbbu leen tundoo di tàmbali nañ ci njàngum xam-xam waaye foofa lañ koy yeggalee gannaaw bi lañ leen indi Touba waaye li indi Serigne Abibou Mbacké Touba ci sa làmmiñu Cheikh Fane bu la génne euh, dafa ñëw fii fi Serigne Amsatou ne ko ñu di bëggoon nañ nga taamul ñu koo xam ne dafa bokkoon ci yar bu njëkkub sëñ Tuubaa ba hmm. te jànge ci sëñ Mat Dem sëñ am sut ne kooku de xamoon naa ci ku ñuy wax sëñ Abibu Mbàkke laxasoon na jàngi gannaaw bi ba ñibbisi na xam naa suñ ci mënee waxtaan ak sëñ Muudu dey ba mu andil leen ko moom la ngeen ci bëgg dangeen ko am tuuti tànk amagul ñaar fukki at <laughs> yooyu dafa am solo nit ñi di ko xam hmm. <clears throat> suñu am satu ne ko da ngay nekk nag kon ma waxtaan ceeg Cheikh Moustapha waaye xam naa koo xam ne day jàpp naa ne mën na ci sañ bu dara mm. ñu koy wax njaxat gay doon mm. wala suñ son bu boo ko laajoon waa këram mm. ñii fi nekk tey ci saa di dund danañ la wax kanay njaxat gay suñu ko ci njaxat gay ne ko na fi ñëw njaxat gay ñëw fi mu wax ko lii suñ son bu wax mu ne ko loolu de mën naa nekk suñ Abibu di ñibbisi na waaye fi am ne daa toll ci jàngal soxna may Kabir Masalik xam naa sax lee mu jeex waaye xam naa buñ ko jaaree ci sëñ Moodu mën naa am li bëgg da ngeen ko am sëñ am surtout wax ko ko ko waxee sëñ Moodu yónnee woolu sëñ Abibu daal di ko jox ndigal lii kon Cheikh Souhaïbou li tax sëriñ Abibu ñëw Touba ak ya romb yëpp ci xamal ga ak li sëriñ Abibu nag xamle ci yoon wi ci sët sëriñ Touba yeeg mboolem yoon kon loolu ci làmmiñu sëriñ Souhaïbou la njëkk a jóge ci liggéeyam la njëkk a jóge moo Cheikh moom la ko doxloo ak ki nga xam ne rek seen donga bàyya mu sëriñ am sët Cheikh Souhaïbou tam ci taxawaayam bu tedd boobu dafa fekkoon sëñ Souhaïbou bu njëlbeenam ku teel a xam boppam la ci wàllu ñeme njaboot dawul yandal dawul fanaanal ngir njaboot gi loolu war bi sëñ muur yi dem Cheikh Souhaïbou bu fekkiwu sëñ muur yi dem ba mu ko yëgee ba ñëw ca ni fa sutu yéene génn dëkk bi 45 ba léegi lii fi xew te fekk ko fi te sëñ Tuubaa digaloon na ko muy jàng ka jàngale di indi daara ji tey laa lay wax bi ko tàmbalee tam mu féete fa nag njabootu sëñ Tuubaa gépp ndax ñoom ñëpp la laaj seeni seeni doom nga ku ci ne doom ka fa jànge boo ko laajoon daana sëñ son moo ñëw sa kër bàyyi jël ma yóbbu am na ñoo xam ne foofu leen di yóbbu ci ñu mujj yi matu matugu ñoo dal kon liggéey bi mu liggéey ci lislaam liggéey ko ci liggéeyal ko sëñ Tuubaa suñu yaakaar àddina ak àllaaxira kenn mënu ko def xiyam ba xam na mu toll ci diggam ak ñi nga xam ne ñoo doon ay bokkam yi ko jege bokkam moom sëñ bi ci borom weer wu tedd wii rek ci laay ñëw diggam ak moom moom Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Amadou Fadal hmm. dafa xëy woolu Cheikh Amsatou moom ñëw hmm. mu yónni ko ci Serigne Sow hmm. ne ko waxal ma ko ne ko day sant naa ko gërëm naa ko ndax dëkkub Sëñ Tuubaa bii de ni ma ci wétalee fekk kenn fekk ko ci wétal lu xóot la Sëñ Fallu wax na ko loolu muy dégg ne koy digal naa ko bis ma wàccee liggéey na ma toppatoo na ma jullee hmm. sëñ Sonia bu sëñ Fall sëñ moo jullee Cheikh Mamadou Fadal hmm. te boobu ay magaman yu hmm. loolu doy defe naa féetiwu ko kaw ci wàllu koo bokkal waajur ba noppi sab taaw mag ko ndax soxna benn fàllu moom ak Cheikh bu daal moom suñu suñu na ko. waaw boobu daa daa fa ñuy wut àgg waaye soxna benn fàllu daal moom sama maama sañ naa ne moom ak suñu sooyewu. Hmm. waaye teewut. Hmm. Cheikh moom lii la digle hmm. <coughs> tax keroog bi koy toppatoo suñu sooy bu laxat boobu ngi dund. te it li lay li lay xamal sëñ bàttindoom sëñ fàllu Cheikh am sa toogam ak tuuti ci saayir ci at. waaye yi gi mu ko yónni ne ko moo fi jógee na def lii. moom xamoon na ne si ñëwtu dana fekke loolu ñoom dañ doon jommale ba dem loolu defe naa ne dama ko doon barkeeloo rek ci digganteem ak ku tedd kooku nga xam ne lii jaar na seen diggante sëriñ Sowe bu ak Cheikh Abdou Lahad ak Cheikh Saliou ak sëriñ Abdou Samad su bëru Tabaski masaan jot ku tedd ki day yónni sëñ Taïba Touré booba ci oto yi kër gi la yor booba ba Taïba Touré sëñ euh, Fallou Diop Matar Antum bi la euh, sëñ Fallilu Njaay xewar booba ñoo yor oto yi kër sëñ Tuubaa yi bu Tabaski jotee wala Korite da leen di yónni ñëw ci suñu am datu jël si kilifa yooyu bu ñu ba bër gi jeex mu yónneewaat ñu jël si suñu am datu ngir buy tàggoog ñoom am sutu fekkee tàggoo ba ci loo xam ne waa këram yëpp xam nañ ko bi suñu am sutu jógee Touba ñëw ñu ubbil ko kees gi muy dugg si fekk sëñ bi woolu nañu tedd ñooñu bañ ñëw ci jataay bi suñu son bu nekk na ko ñëpp loolu doomu yëpp dégg nañ li may wax bi sëñ am sutu dugg yooyu ci kees gi ñu ubbil ko mm. bi mu yëkkatee jëm sëñ bi ci mbaar mi mm. dafa bóof fi suuf di di raam ba dugg mbaar mi hmm. suñ tubaab benn bim daw ko jox loxo ci ñim yar mustam loolu léegi la xew hmm. do jaar ci santam tam ngay hmm. jum rek buuf mu ne la kooku diw ñëw ngaa mu ne la waaw sa bëtit suñ soñ bi daanaka net nee na ne suñ am satu yëkkatiwut ab jëm ngir xam sëñ bi xool ko si ñu ne ko am satu jow ngaa mun a ko waaw hmm. amanteeg moom laaj ko dañ ko hmm. waaye damay tënk rek hmm, bi mu waxee moom lam mu koy wax ci ñoom ba noppi ndax daf ko ne seetlu naa njàng mi day waaye dafa mel ne li nga doon ci ñoom feeññe ci njàng mi xaw naa yeex mooy mooy mooy mooy maanaam yi ndax daa àndut ak fitna si ñëpp mu ne ko ah bàyyi jàmbaar jaxate day amoon na doom ju ñuy wax Alassane jaxate xam naa su ma ci amoon ndigal jëli ko moo ma ci jàppale dégg nim ko ni mu déggee bi ci li mu ko wax hmm. mu ne ko am nga ci ndigal hmm. wala sëñ Alassane suñu am surtout dem Mbakol jëli ko indi mu jàppale ko ci ñu tedd ñooñu ndax la ca Alassane di fitna soo ju ñi nga xam tax njàng mi gaaw ni ko sëñ bëggee am surtout mu mënul loolu ndax suñ jubaa ko yar te xam na ñim yor ñooy kan mm-hmm. euh, yu xóota gi ci nag ndax yëpp daal dis ko mën histoire day def ngay wax ñu cay déggee te te déggin war a rafet yastami'uuna al-qawla fayattabi'uuna ahsanah danañ ca jariñoo hmm. moo tax lu ci safaan rek ñu jéggal ma ko ca la ko diggalee moo ko am surtout buñ buun buñ saalañ hmm. buñ buun may defaray gàtt di leen jox seen bopp yi buum sax defe naa yéen ñii nga xam ne Cheikh Souhaïbou booy leen meññi hmm. taamu ngeen ak ñim yar saalañ moom ki ñi mu woon def ci kër gi ndigalu sëñ Tuubaa loolu bokk na ci fekk na laaj na leen ñoom sëñ bi xam naa ni ñuy dundee ba ñoom ñu wax ko bokk na ci lañ ko xam lam leen laaj da ngeen naan café da ngeen naan warga da ngeen buun kooku mu laaj leen hmm. xam naa ñoom itam ñu waxee nam nam amee hmm, hmm, xam naa soree geeg léeg-léeg jeeg yëf-yëfaan yooyu mu ne ko nga ne da laaj ñoom da laaj naa leen waaye daa mel ne li yaar yi moom léeg mu xaw fa am manqué suñu am ne ko ah, daa ko dut am de xanaa léeg-léeg te ñi mu ko wuti fen ndax yaa ma ne woon bu génn dëkk ba mu ne ko baax na ca la ko am sut noppee manqué nag moom ba bi mu fiy jógee lu ne ay magasin lañ ko ci miraas yooyu dafay yu luxu yoo xam ne ñu ma ñu ma yëgal nag ci nettali yi ndax mbirum baatin kon wax na ko ba tàyyi suñu ñëpp nett na leen ko suñu fàllu surtout nañ ne ñoom kenn féetu ko ci kilifa ndax mu doon ci ñoom ci bopp ak jox gi ko suñ tubaa jox waaye bi mu duggee ci kees gi màndarga yi mu def hmm. suuf di raam di ñëw def woon na ne te kenn du defal kenn waxutuma ak moom moom koy def moom nee na ca loola ca la xam kan ay sëñ Touba moom moom Cheikh Souhaïbou boobu nett nett na njabootam lépp loolu. nee na bi ko sëñ waxee moom ba muy dem. ba mu ñaanal ko nee na bi muy génn fi doon buut buuti di ñëw noonu la toppewaat di ko maasale di dem ba génn kees. loolu mooy kon yaru sëñ Touba. ak ñi ko toppoon. xam ko sax yombul. waaye day mel ni dara ji juñ ko jox. moom yàlloo na ko mbaa ju ko ëpp. mu mel ni njabootam giit ba ba day tukki dara ji juñ leen jox nan ko dugal ci dara ji yooyee suñ maam yeeg suñ bàyyi daan jox ñooñee. ndax yàlloo nañ kon. ci wàllu diggam ak sëñ bi. ak xam surtout ñu nekkaloon. ba mu leen di yeewi nag daf leen ne. ñii de maa ngi leen di digal. kemtulaay nu ngeen bëggee rawante ci sama mbir mi ngi tënku ci nu ngeen gënee fonk mbirum am sut dégg nga sëñ Tuubaa ni mu leen di recommandé suñu am satu ngir ñu jàppale ko tey ak ëllëg ci wàllu say ñoom ñëpp bañ génnee lañ wax loolu sëñ Abdou Lahad ma ko nettali dañ ne fas nañ yéene day sëñ Abdoulaye Jaxate ab taaw moonu mag ji tam waaye fas na yéene suñ mënee dara danañ féete sañu am sutu foo xam ne Abdoulaye du ko fa féete loolu li ma ci fekki wut lépp sama bàyyi nett la ma ko li ci bay ëpp itam fekke naa mujj gi lépp ndax fanweeraat yi mujj yëpp fekke naa ko ba ci mujjantal waaye ci suñu sooy bu laay ñëwaat ci wàllu boobu hmm. ci jamonoy guerre bi nga xam ne dara amul daan def bu tukkee ci réew mi doxantu bu ñëwee li am ci wàllu dund muy pepp muy ceeb da ciy wut ab lim boo xam ne muy ëpp bi muy def ci këram fuuf booba saako yi ceeb yi mooy saako yi am kuulu wert bi noonu mat bëri ko cent kilo bëri ci pepp mi tam ci ay nàmmaan lañ koy def waaye suñ sooy bu day woo du Jong suñu Amadou Jong saxul la bàyyi la ci man bàyyi suñ kan ak sëñ Ibra Wañaan Wañaan góor Ba Wañaan boobu ñooy dongo yu mag yi. Hmm. bu bu waree ay yónnee sëñ am sët li mu koy jox day yónnee ay paan paan paan yi jigéen ñi fóote ñoom ñaari jàpp yi ci lay jënd lu bari bu ñëwee saako mu ne ñu sotti ko ba paan gi mëkk. nga xam ne du jóngi jëm kaw du curi suñu sëñ bu ko amoon xelum àddina la te bari sutura pem bi dañ koy sotti ci paan nam lim ba toll ba saako yee jeex dugub ji dañ koy bi dañ koy sotti ci saako yi ba lim ba jeex fekk jënd na pusam ngaax ak diis yi ñu koy ñewee woo dongo yi ku ne yeno ak paan bu dongo yëpp yenoo mu jël ka ca mag ca ñoom jox ko xotti saako yañ ko sottee woon ne ko boo demee neel seex bu ngeen demee ci seex ne ko maa leen yónni ci baayam wax ko ne ko lii bàyyi ma ko waaye nag na ngeen taxawalaat saako yi sotti ko ci ba mu mel na meloon ngeen ñaw ko ba mu mel na meloon ngeen doog a ànd ak moom doon nga xam ne ñi ñuy romb kenn du xam lu ñu yor. surtout hmm. hmm. surtout loolu la ci jublu hmm. boobu loolu technique la boo xam ne képp kuy defati lu baax. loo ko gën a mën a suturaal. royee ko suñu son bu moom baax na. diggam ak Cheikh Abdoulaye nag ak sëñ Saliou moom ci li ñëpp xam day mel ne ñoom seeni njaboot ñëpp a jaxasoo waaye day mel ne ñoom nag ku sëñ Abdoulaye di sa waajur rek li ci ëpp que sëñ bu nga xam la sëñ Saliou noonu ba ci sëñ Bass mii su sëñ Saliou euh, fa la defee ànd ko booba suñ saam suñu Abdou Khadir ak suñu Cheikh ak ñoom leen teel yàgg naa féete bokkam yooyu fu rëy rëy rëy du woon diggante mag ak rakk diggante taalibe ak ab sëriñ la ko hmm. daan bay ba ma ñu yor sëñ Abdou fekk fañ jàkk la ñuy jàkk mu toll ni ko yóbbu suñu sooy bu di ko yëg nga xam ne suñu sooy bu day laajte rek ñu ne ko suñu du jaar na ko yóbbu loolu te du ko yëgal du yëg ni du yëg loolu am na kon nangu loon na ko diggam ak Cheikh Saliou nag moom ci li ñëpp xam duñu woon ñaar benn lañu woon fi ne doo nga suñu Saliou yu mag yëpp yëpp yëpp yi ci ëpp ma ci xam jaar nañ ko suñu sooy bu nga xam ne mujj na ñaari kër yi doo xàmmee ku ciy dongab kii ba ci Moussa ñoom ñoom ñii di dund bokk laa jël naa la ñoom ñëpp jaar nañ ci loxoy Cheikh Souhaïbou ba si ñëpp yi ngeen fekkee ngeen loolu bi nga xamee ne sëñ Saliou bëgg na daara yi alxuraan yi gën a yaatu sëñ Souhaïbou la laaj ay sëñ daara hmm. sëñ daara yu bari ak ñu bari ñu ma ko alxuraan ci daara Cheikh Saliou que suñu sooy wala ña leen jàngal jóge euh, mel ne tam ka ca bopp booba muy suñ suñ waxtaan jaxate ndey ak bàyyi na ci sang soo xam ne <coughs> kon seen diggante benn lañ woon duñu woon ñaar ci wàllu liggéey bi suñ tubaab bi suñ sooy bi tam daan def bu xaaju guddee mu yónnee ci sëñ Saaliw ne ko ne ko naa fa ñëw bu tànk dogee benn mu ànd ak sëñ Abdou Lahad sëñ Sohaybu wala sëñ Fall wala ka ko ka ko sopp bu fa demee balaa mu fay jóge dañuy fajar ji jege. nga xam ne sëñ Sohaybu bi dana ñëw ba agsi sëñ Saaliw ngir bëgg waxtaan wi yàgg ci lay doog a laaj sëñ Sohaybu bu lu mu bëgg ko togg reer <laughs> te fekk boobu mi ngi lay jot mbaa ineer ataaya yi yu ngi koy tàngal itam ca booba lañ koy tàmbali waaye baraad bu nekk morooma dana man waxtu mbaa mu ëpp ko hmm. ngir bëgg waxtaan wi yàgg hmm. te duñ ko yëg comme seen diggante lu sori woon lu xóot la hmm. bu dee nun ñii nag di gone yu ndaw yenn saa yi mu yónnee woolu seen doomi nijaay ji nga xam ne seen donga mu fekke waxtaanoo waaye waaw nun ñi tam di gone yu tuuti baraada bi ñuy samar noo ko daan teggee tegal leen xam ne ñooy def lépp yow daal yow yaay euh, baxal satala gi euh, boole ko yére yi yóbbu waaye da leen di dànd nag doo doo bokk ci jotaay bi moom ci diggam ak nag àddina musu waaye ku amoonum ku ci amoonum xel la ku ci yeewu woon la hmm. sëñ Abdou mii li muy bari bari bari xam-xam ak baatin ak saay hmm. ku doy la woon Seex Sohaybu la hmm. ndax daawut def lu mu diisoo wut ak moom lu lu lu disi bi lu diggante bi gàtt gàtt gàtt dana ko yónnee ndaw ne ko nangam laaj ko ca xalaat waaye sëñ Sohaybu itam balaa moo wax xalaatam ndawul ñaareel ñëw su ma saan yónni seen jàmm bii da ko suñu soñ bu nangam suñu soñ bu dafa boo demee ne ko lu mu lu mu xalaat rek jub na fi ñëpp bu ko defee bu Cheikh ñëwee suñu soñ suñu ëpp laa ne ko déedéet waxewuma foofu damaa bëgg mu wax ma lam ca lam la nga la la nga xam ne bu doon mooma loolu lay def ndax lii lu ñëpp a ca la suñu soñ bu doo ko tànnat jukkat yam jàpp ne war ko wax ci ay ci orma kon doy la woon na ko mu mel ne lii nga xam ne tey mooy liggéey bi gën a mag mooy njàngum xam-xam ni wax naa la alxuraan li fi bi ci féete woon waaye mu féete fa ñëpp ba yàlla dogal daara ji ci biir mbooloo mi ak euh, taxawaay yi ëppati loxo waaye effectif bi bari na mu wax sëñ bi sëñ bu ne ko dama bëggoon day daara ji suñ ko mën a yàqale suñu soxna bu ne suñ si Abdou Lahad ne ndaw la nee ko fu ko bëggee mu ne ko xanaa fii ci ñànk gi nga xam ne li ñuy jàng alxuraan fi la lañ doon jànge bu nawetee daara bay si gi gi ci ñànk loolu ko sabab ndax un kilomètre carré la fi siñ Cheikh am sutu amoon suñ njëkk di fi bayee muy ay toolam su nawet jotee danaa ñu ngi jàng alxuraan dañuy boole ëllëg yi ak téere yi dem foofa di fa jànge suñu sooy bu ne kon bu ñuy wut daara jeneen kon fañ doon jànge alxuraan bu soñoon foofa lay doon loolu indi daara yi bàyyi seen kii ji bi nga xamee ne dem na ba bëgg mu gën a yàqali ko nag mu gaaral ko tey jàngu bii tey di université ci la am yu bu la jógee hmm. sëñ Abdou Lahad nangul ko ko daal di yónni seen jaam bi di seen taalibe bi booba ko ñu wax mët jaxate moo nekkoon kadaas bu Jurbel sëñ Abdou woo mu ñëw mu ne ko kon nara sëñ sëñ wax fa mu ko bëggee waaye moom nii siomètre bi nga xam ne moom la fi nguur gi teg mu wax lañ koy fay ma fay ko mu natt ko sëñ sëñ bu ñëwoon ñoom ba fii ci dàkk sëñ Cheikh Saliou carrefour bi ne ko fii la dale ba fa ñox déegub seko moo nekk trente mètres trente bi nekk diggante janatu Mawa ak Madiana hmm. mooy déeg boobu buy taa foofu ci buntu jàkk ji hmm. biñ ko nattalee li nga xam ne jàpp nañ ne mooy université suñu jàngu bi biñ ko mënee Sëñ te booba genn wàllu lii rek lañ la nattoon suñu dane doomi Sëñ Tuubaa kenn du ko doy doyal lii ñu natt nañ ci natt ñaari caam te booba suñu sooy moom lim natt lu liñ ko liñ ko wan ci ci liñ jot natt moom daa ëppoon ci moom gis nga ñoom fi niñ ormaalantee ak ku ne ragal goo ragal mbirum sëñ bi te sa morom te ragale ko ci sa moroom <laughs> léegi la ragalante bañ léegi la léegi waaye xewoon na de di ormal it ba doo ko ñemee booba genn wàll yëpp bu ñu ko njëkkee nag Cheikh bu dana woon doy na ci moom waaye ñun nañ ko def un kilomètre carré mujj nañ sax wàññi ko def lee ay kër waaye loolu la suñu blaat joxe woon fii mooy penc mi hmm. lii mooy kër sëñ Sow bu fa defoon boppam mooy kër sëñ laat Sow bu mbirum Sëñ Tuubaa lépp day baatin Sëñ Tuubaa ñaanoon na ko ñaan gu gu fës fang ci Matlabul Fawzayni Sëñ Abdou Lahad section yi wax ko mu dox jëm ca jëf ca lam ci njëkk a jëf mooy dafa wóolu Alaaji Njuga Kebe ne ko sëñ Soñ bu kat léegi bëggam bëggu Sëñ Tuubaa nag ku ci feeñ jootu nëbb mu mukk boobu njuga milliards yi demee gudd ne njuga ne ko fas naa ko ci yéene fas naa ko yéene miire dinaa ci def itam fu ñu tàmbalee jàngu ak jàkka suñu bilaat ne ko téewut man tam kat dinaa ci def may sanwal ndax sas naa taalibe yi te lu ma am dinaa ko ci def hmm. waaye da bàyyi nag ba li ma am jeex ndax fi ndigalu suñu soné bu hmm. ndigalu suñu tubaab kenn du ma ci jiitu ñu jël benn tubaab bu ñuy wax rikkiti booba mooy architecte gu Ndiouga Kébé Ndiouga tabax rikkitee ko tabax moo miiree woon miir bu njëkk bii ci université bi ak jàkka jegeen fa seen ak ecole bii nga xam ne soxna may sëñ Abdou Lahad nii ci xam yéene baayam ak bëggu baayam moom lañ njëkk a def école boo xam ne fa la ñu ñëwoon jànge sëñ Saliou itam ñi mu ñëwee ci la joxoon kilifa yu baax yooyu sëñ Abdou Khadir mu sëñ Abdou suñu ëpp laat soin bi ñu dëkkalaat daara ji ba noppi tàmbaliwaat njàng mi foofu mooy daara ji njëkk a dugg foofu. Mm-hmm. waaye nag Sëriñ Muntaxa wax naa ko ko benn bis te loolu ñun ñëpp noo ci maase ci sant ko ak gërëm ko ak ñaanal ko yàlla. mu yàgg fi loolu te amul wér ci barki Sëriñ Tuubaa université bi itam waajuram yi ko nii sa doon ngir dëggal ñaanu Sëriñ Tuubaa googu moom itam mu façon ci ci xolom te ni mu du ko wax du ko wane ba doon sëñ Tuubaa dëggalal sëñ Tuubaa ñaanam googu àggaleel juróom yooyu seen niser yooyu loolu yi lu ko sëñ Tuubaa dencaloon la. 70 10 wala 71 suñu sooy su ma saan jógee këram di julli si àjjuma buy ñëw day dox. boobu oto amagul bëreewul. dinaa ànd ak sëñ Cheikh am sëñ Abdou Lahad sëñ Laat sooy bu muy dégg ak Mbacke Kañ moom ngeen tudd. ak ñaxal sekk hmm. ak ña ya? fa eh, ne benn bis ñu julli si ci ajjuma biñ jullee ba noppi fekk ñu yor benn mercedes bu weex suñu seex gaaw génn ne ko ah alaaji bul dem ba kat ndax suñu seex bi mu ñëw daa dox na ko sootu bi yóbbu ñu ko ne mu ne ko waaw mu ne ko dox mu ne ko taxama di ci gën gaaw daal di bi ne ko wàcceel ma samay bagages. carte grise bi nag ak caabi ji boo demee ba sëñ wàcc ba toog ci lalam. dem fa jox ko ne ko màgg jox addiya sëñ Tuuba booba. daanu xew na. ormal doomi sëñ Tuuba xew na. ormal njabootu sëñ Tuuba xew na. léegi nag xawma lu xew kon. yoon wi dafa am ay réalité ak ay ay ay ay yoo xam ne dafa mat di fàttali bañ xam ne ndekete yoon wi alal jëriñu fi dara lu dul jaayante di ko jox suñu Tuubaa te yàlla tax waaye jural na ko lu bari biñ nekkee tuddoo di di jàng hmm. ci xam-xam ci ron Cheikh Moustapha ci intut dafa amoon suñu Moussa dafa waa ji defaloon ma nekk foog nga ne fa ndax suñ ñu boole woon rek suñ tubaa dafa waxoon Mour Moustapha naa la ba ba ba ba ngay ba ci waxin am sutu mii na ko jàpp ne am sutu digal naa la mu suñ Mour mu mii na nga ko téye jàpp ak téye nag du benn waxin suñ ci wàll leen di jàngal su ngeen dee ba ca kanam lu la jaaxal ci sa bopp laaj ko am sutu mi am sutu yi itam loo bëgg ci man jaar ko ci Moustapha mi <coughs> moo taxoon suñ mu Moussa ne ko suñu maa am kër foo foo foo sësut ci man loolu laa ko taxoon yóbbu ko suñu am sutu yóbbu fa dong yëpp suñ daam jóorloo mooy maami xale yi gone yi maami suñu Omar Jaxate mi suñu am satu ak ñoom ko bokkal ak ku ñu wax suñ moor jóorloo suñ moor joor nag amoon soxna suñu wax anta lëy anta at bu jot dana ci amee loxo ñaari yoon ba ñetti yoon bañ jàpp ne loxo bi dana ak ak loxo mujj bi jàpp nañ danañ ko dagg mu ñëw ci Cheikh Souhaïbou hmm. pour wax la ne ba mu dalee wane ay kiimtaanam ba mën naa ci nett lu yu bëri waaye day def lu lu ñëw sama xel rek ma fàttaliku ko xamaat mooy xamaat mooy kan ante lay ñëw ne ko sama loxo bi day dafa gis nga ko nii at bu jot mu dikkal ma ñaari te nee ñu sax bu mu danañ ko dagg suñu sooy bu ne ko demal nga wut neeni ginaar nga baxal ko ba mu ñor hmm. nga wut pot bu yaatu xam nga boo pot dagg xew nga def ci suuf nga rangale ko ci ba du gaaw a toj mu neen ya toll nag ci bari ak ci néew ñooyam fi man waaye na doon yu baxal ba mu ndax boo bëgg na ñoom ñoo ñu di kilifa yi léeg-léeg bu ñu bon cee jëfandiko wante lay dem def loolu fag ba ko ñëwee suñu sooy tàllal la loxo bi ñaan ñaan boobu suñu sooy buy tifli tif tifli suñu sooy bu ku ko xam tëf lay def bu nga ko defee ñetti yoon maamante lay ay ay ay ay doomam bu yàggul la fi jóge waaye ay sëtam a ngi fi te lii may wax kooku ci ko ci seetaan wala nga déglu ko da ko dëggal ndax nett seen maam nett na leen anta lay nee na waxuma loxo bi metti waaye dund na ba amaat juróom ñeen fukki at doog fee jóge bopp képp bu su ko metti moo jur bàyyi seen juróom ñi nekkoon bëkk néegu si xamsatu ak kañ wax Abdoulaye Lo seen kër ngi foofu ci Madiyana ci wetu kër Baye seen ji sët yaa nga fa ak doom ya bu ngeen leen laajee lii maam Anta lay ñett ñu leen leen loolu ci diggam ak Cheikh Souhaïbou moo tax mi bi boobu mag la woon eh, sëñ Souhaïbou boobu amul ñaar fukki at laa wax gis nga médecine gii nga xam ne da ci yéeme hmm. nga xam ne xiisaa ruuxulaay lañ nekk ko ciy méngale ci ndono hmm. day mel ne ca booba jamono la ko amoon gis nga garab yi mu daan jox nit ñi da ko daan mbubboo rek di ko nëbboo hmm. waaye wopp ju a suñu sooy mos sa yëg mos sa faj ku faatu. tërbiye gi itam mel na ne na ko lool bu génnee ci moom moom da ngay da ngay insaan kaamil xam nga tarbiya gi moom buñ buñ buñ ko joxee koo xam ne doomi kilifa yi moom moom moo leen ñi ca moo leen jàngalal boppam moom moom da day day leb sa dañu xoof sa bakkan carrément ba alxuraan dugg ci yow moom kooko laa ci ñoom rek xaw naa tuskare bu dee doomi teel bi yi nga xam ne ñoom méngoo ñoom ay atit ñoom lay ñoom lay atte ñooy ñooy bokkub atte suñu sooy bu amutoon ségrégation ci la fekk si yëpp doon bay fii ci mbaraan mbaraan jëng donc yi fi njëkk ñëw tey war a tarbiyo foofu lañ leen yóbbu woon fa lañ doon tarbiyo sëñ lay juuf ñoom yi sëñ mat ba ñeneen ñi nga xam ne ñoo bokkoon génération ñoom ñëpp mbaraan jëng gi lañ ne ko Hmm. waaye booba lu ñu ban di bay itam suñu sëñ bu ko du ko mos xorom suñu daal la koy jox benn mu jox ko wala suñu bi jëlal ko boppam te suñu sëñ bu du bay dama ci nett di tuuti rek lu fa xewoon te suñu sëñ bu yéeme ci ak donga bàyyam bi woon fii ñaa ma laaj tarbiye gi hmm. ci dong yooyu hmm. dañoo am bis dong yi coowoo ak pël yi ba xeex am fa am ci pël boo xam ne dañ koo cor ba mu nekk diggante dund ak dee bi ñuy waxu ko Cheikh Sooy bu mu yónni bàyyi sëñ kan ne ko demal ne Cheikh na dem fa baayam ne ko dong yi kat dañoo jotee pël yi ba wax nañ ca koo xam ne nii mu ngi diggante dund diggante dund ak dee mu bëgg nag mu def ci ay pàggutéef ci yi ko sëñ bi jox lu jëm ci loolu ndax bakkanu pël ba day dirot ci sama loxo yo loxoy dong am naa ci xel lool moo xam ne su ma sañoon du am hmm. suñu surtout ne Cheikh waxal kan ne ko ne ne suñu son bu lim ci bëgg rek ay am bu soobee yàlla hmm. suñ kan dama wax loolu seex son bu mu ko dama wool ma Cheikh mu ñëw suñ Cheikh ñëw suñ ni ko ñëw luy suñ son bu mu ñëw mu ne ko ma ko waxoon wax na la ko wax nga ko sa bàyyi waaye nag loolu daal doyut moo tax ma woo la boo demee nee ko bakkanu pël boobu bëgg mu muy rot di rote ci samay loxoy dong ba ëllëgee ma koy layoo ci sama borom nekk na ci jëfandikoo lu mu wóor lii ma wax ko bàyyi mu wax na lii mu ne ko kon nag fii ba boobu ak ci yor yor la mu ne ko fii ba ginnaaw gee bu ma fi nuyoolee kenn du fi kenn dugg ndax magasin boo xam ne yoroo ci lu dul caabi borom magasin bi yónnee ci magasin bi di la laaj loo ci jox lu loo ci dul jox ko ko danañ ko nangu dégg nga fa mu nekk ak suñu boroom mm-hmm. borom magasin bi te yoroo ci lu dul caabi mm-hmm. borom magasin bi yónnee di ci laaj. Mm-hmm. soo ko joxul lam ca laaj. danañ nangu magasin bi nangu caabi. juróom ci bi nga xam ne lépp xam nañ ne sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa mooy sëñ Sohaybu loolu lay jàngale yaa ngi dégg loola la ci la ci li cay li laa lay wax pël boobee dundaan na fi ba jébbalu Cheikh Sohaybu gannaaw sëñ Sohaybu sëñ Fallu sëñ Sohaybu la jébbalu ba fii ne ay doomam sëñ Fallu seen sëriñ c'est vérifiable bokk laa jëm nett la ne la diw ak nii ci 1942 43 bi sëñ am surtout ma nappee mën a bind ci loxo bi lu lu xóot la te sëñ Souhaïbou boo ko faj sëñ Tuubaa dafa waxoon sëñ am surtout ne ko bi ma lay tuddee si dinaa am sa kat waxoon naa la ne bala nga fee jóge danga nga gis màndarga mu ngeen bokkule sëñ am surtout xëy ab loxo ne ko tàpp dal loxo bi metti ba metti di yem bañ na ko dañ koy dagg mu ne moom da cee sant yàlla ndax suñ tubaab diggoon na ko ko ndax si Seydina Hamza sahid la bu fekkee lée may lée ma may tax a sahid nag man du ko faj ndax suñ tubaab delloon na ma ko nangu ko faj nangu cee def dara ba loxo bi commencé di saxew suñ seex dem fi suñ sone bu ne ko ah sa taal bi maam bàyyi bee day loxo ba jéggi na dayoo te fu ñu waxee rek mu ne suñ tubaab delloo na ko du ko te xam naa ne fokk docteur am ci yoon suñu sooy bu ne ko bu ko wax dara ba suba suñu sooy bu mbàkke la yónni woolu docteur Fall mu ñëw ko suñu sooy bu mu ànd ak moom ñëw ci suñu am sut bi mu ñëwee bi nga ko xoolee dane bu ñu ko dindi bu ñu dindiwul baaraam bii mi ngi yël di jàll laa waral sëñ am satu ñu dindi baaraam ba mu sant ca faj ga ci li sëñ soñé bu def waaye mi ngi sant cam ci dël gi ko sëñ Tuubaa dëloo